jàkkaarloo seen kër àjjana mmh. waaye du tee bu dee yonte ay saa salaam nañu yàlla ne na ngeen koy ñaanal mmh. kon keneen ku dul moom mën nañ ko ñaanal mmh. moo tax ñuy tëjee ñaan gi ñaan yàlla yàlla xaare ko amiin firdaws yàlla yaatal ko lool waaye ko suuf si kawam yàlla taas ñu si barkeem waaye it ñun ñi nga xam ne yàlla bay nañu yàlla ñu yéex a fayamtu lii yàlla it yéen ñi nga xay xam ne yéen a war yàlla na yàlla koy fal yàlla na yàlla daal def jàmm ci def ko ci réew mi def ko ci àdduna amiin